salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ne golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu ñoon simbu gaynde la. dama lay yow xamoon nañu ñoon simbu na. ba léegi da koy ah, ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu ma. man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. léegi génération bi jaal na génération bi kan moo ko ubale waaw génération bi ñoom ñëpp sumay doom lañu waaye bu caaxaan demee dëgg des bi Tapha Gueye jàllee ci bëre ki nga xam ni xeet bu na daanee na ko mbër ci àddina mooy Balla Gaye numéro 2 kooku mooy dàllinkoor kon gis nga Balla Gaye ci Tapha Gueye non bi Tapha Gueye jàllee cest à ñoom ñëpp mën a bëri mais daf ci am ñoo xam ni dañoo daan ay façon ngi jël yoo xam ni xeeti rendez-vous ñu am yoo xam ni génn ci xam nga xam nga mbër booy bëri kopp doole gën koo diis mais bëri ku la ëpp doole wala ku la gën a diis jaar ko fu mu foogutan wala mu àggale fenn fi faal daf ma daa wax ni ma mbër bala ngaa xam-xamam xam-xamam dañ koy àgg fu sori mu fexe ba génn ci comme mbay géey la Tigre de Fass Balla xoolal Balla Gaye 2 li ma wax ci mànga ni mus ñu koo dóor mu daanu musul dem ardo Balla Beye musta def recours mësta dem ardo bu la yóbboo ardo bala ko arbitre xam mu daan la boo ko yóbboo ardo bala ko arbitre xam mu daan la maa nga daan ko dama ne nañu seet boo génnee combat ma Gris Bordeaux lim bëri lépp ci àddina lim daan ak lim daanu soo ko boolee matul fanweeri simili lépp lim bëri ci àddinaam boo génnee combat ma Gris Bordeaux lim daan ak lim daanu lépp mutul fanweeri minit lépp boo ko dajalee loolu ku ko mës a def ci làmb ci àddina kullu fadrin xeetu bëre boo xam ci àddina Balla Gaye daane na ko xeet boo xam am na sax xeet yum daane yoo xam ni ñii xamuñu ko taax yi xamuñu ko loolu bërëb kaw la wan xam nga papaam ñaari bëre rek la daa daane gaa yi mbaa ñett moo tax moo dàq bëri papaam foofu ëpp ko ay clé papaam daf la daa dóor nga daanu mbaa mu ngeen daw songoo mu téye sa gi ño taf la ci boppam roof la korte biti wéeru la nga jaaxaan wala ngeen daw daje mu riñaan la yéenu dóor ci suuf ñetti bëre yooyu la papaam bëre ba làmb jeex waaye xeeti mbay xeeti bëre Mbaye Guèye Moustapha Guèye xeeti bëre Yékini xeeti bëre Manga xeeti bëre ku mel ni Assane Baye Faly xeeti bëre Ambra Sarr xeeti bëre ku mel ni alin juuf xeeti bëre ku mel ni euh, biraan Kumba Euh, xeeti bëri ku mel ni Sadio Camara xeeti bëri ku mel ni euh, euh, comment s'appelle ku mel ni ku mel ni ku mel ni Papa Kan Caaroy loolu lu raar la. waaw lu raar la. Balla Gaye ak Eumeu Sène ku dàq bëri bagage technique kan moo ko ëppale. xam nga soo waxee ne Balla Gaye dàq bëri ama Sène du nekk logique ci jamono bii ñu toll mais ñoom ñaar bokkuñu lu ñuy bëri. Eumeu seen il faut ñu xam ne ci genn wàll làmbam la Balla gay feeñ maa ko jëkk tegal ñaari junni ci àddina moom Eumeu seen ak mbay Diouf mu daan mbay juuf keroog mbapatu sàlloo keroog Youssou Dieng nga fa ci buntu këram lañ tëggee mbapat mi keroog Cheikh Mbaba arbitré ma ànd ak Gaston Gaston yàgg naa topp làmb nag dañu dem géejawaay Balla Beye de ub mbapat mi Balla Beye de ub mbappat mi Eumeu seen toj mbappatam géejawaay ñu jaar Pikine mu toj mbappatam Pikine ñu daw mu départ ñu daw topp ko booba ñu ngi koy observe xam nga Eumeu Sène ba ba muy bàyyi bëre day am kàttan day mën a bëre ndax dafa mbappat dafa def nawetaan nawetaani làmb nawetaan ci football mooy mbappat te Eumeu Sène daf ko def dafa bëre der la mënoo koo jeexal mais boo gisee bëreem mag Balla gay wax naa la sànq ne mbër mun a dem kum déggalul bëree Eumeu Sène ak Balla Gaye déggawuñu parce que Balla saa bu dikkee day jàpp ni maa man Eumeu Sène te Eumeu Sène saa boo jàppee ne yaa man am lu naqari parce que xeeti bëre yaa bari te du yokki xam nga am na ci ñu bari ñu ngi daan ba dégg daal yi mais ay ragal lañu maa la wax loolu. am na ñuy am na ci mbër yoo xam ni danañu daan mbër mais ragal lañu ci ragal lañ ko daan Eumeu Sène bala moo mën a bëri dëgg dëgg dëgg gaañu gaañu bu àddina bépp ne am ma seen fu mu jëm xool bëre ma Gris Bordeaux gaañu gaañu boobu kenn su ko gis ci àddina bu doon tey bu doon ci règlement yu bees yi dañuy arrêté làmb ji mais xoolal fa ko Gris Bordeaux àgg ak fam àgg Gris do mbër mu nekk gis nga ni ni Eumeu Sène déggoowut ak Balla Gaye noonu la Eumeu seen déggoowul ak Modou Lo ñoom ñaar ko dàq bëri moom Eumeu Sène a leen dàq bëri fuuf mais dàq bëre Modou ak Balla. ah non non boo euh, dàqul bëre Balla mais Modou xam nga moodu bëre kët la xam nga moodu lu tax tey mu dégg daal yi maa ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla. yàlla may ko fan wu gudd parce que teraanga ku la ko defal doo ko fàtte xam nga 18 ans de média bii ma la woon léegi bi ma koy def benn mbër rek ci Sénégal moo ma yónnee ñaar fukki junni muy Modou Lo te booba xamuma. wala man xamuma ko moom xam na ma ndax booba maa nekk ci trône bi yor rajo bi ñëpp bëgg a seetaan ak télévision bi mu yónni ma cent mille maa ngi ñaan yàlla na ami milliard moom fi muy teg làmb gaa yu bare duñ ko fa teg ci jom ak ngar mi Modou il ngeen xam ne même bu fekkoon ni bii tey xare la buur lay doon moo tax bu amee combat fa muy teg làmb gaa yi duñ ko fa teg daf ciy def jomam def ci alalam ba mu jeex def ci aw fit lu làmb ji rëy rëy Modou bu dikkee dafay appliquer liñ ko wax du ruube benn yoon ci làmb Modou du tiit ci làmb non non non du tiit ci làmb du Modou ak Balla Gaye ñooyam duñ jànnaxe ci làmb loolu yàlla may na leen ko loolu nag gëj naa ko gis ca Yékini Yékini musul am benn combat bu mu tiit ci non non du am pression Balla Gaye du am pression Modou Lo du am pression ci làmb Modou Lo Ama Baldé combat bu neex la combat bu neex a neex a neex a neex parce que nag nañ xam ne euh, fi mu ni Modou loo dégg na daal roi des arènes boo ko yoree retraité nga. yan atu la Ama am ci combat bari na parce que Modou it li muy bëgg amaadu ko ko may amaadu xaar ci bëre. amaadu xaar ci bëre Modou moom bépp mbër buy bëreek moom ci àddina di ko déglu parce que Modou euh, jikoy bukki la yor. ku mën a xeex la ku ñime la mais gars yi xamuñu ne ba léegi ku ñime la moo tax heure boo xamante ni bii may nga ko bat maa déglu ko mu def li mu bëgg a def jamono ju nekk mën na laa dóor dem ardu mbaa mu la nga kaaw xool même ñi ko daan sax dalay gaañ nga door koo daan. su ko Ama Baldé xaarul arbitre civil Ama Baldé maamu ci kawam lan moo ci mën a fekk Modou. non xeleek mag la da ngay xam ni amaay gën a diis bés ba te du néew doole te mën naa bëre. jàpp nga ne Ama dafa diis ci kaw Modou. ah non non day bokkuñu yow tamit xel ak mag bokkuñu Modou dafa moo roi des boo bëree ci làmb soo bëree ak Balla Gaye ñoom bëri ak ñoom Lac de Guiers ak ñoom Eumeu Sène daan leen bëri ak Bombardier mais Modou amatul lu muy xaar ci làmb léegi da ngay xam ni Modou fi mu ni roi des boo koy ree retraite nga gën a jige ak bëri amaa mi ngi door dugg ci làmb ji bokkuñu fi mu ni bu ñu doon bëre tey Modou Lo dafay bàyyee amaa làmb ji parce que làmb ji amaa ko war a téye boobu moo war a wane boppam moo war a dikk ne ko maa ëpp doole. maa dàq xeex maa ëpp fit maa dàq bëre maa gën a doon gone loolu la war a wane ci yoon parce que su dikkee wanewut loolu li taxal mu di ko laaj fay fayut naar bi xoromam. ñoom ñaar ni nga leen gisee ak seen dernier combat kan nga jàpp ne moo ëpp doole. noo xam nga doole mag du ko am ndaw a koy am ku dem ba am ñaari soxna boo ko ku yor benn soxna nga xaw koo mag yi fukki at dootul bokk ndax man li ma mënoon yaa 10 ans mënatuma ko fi mu ni ah non moo ëpp doole doole gone koy am nañu waxante dëgg xam nga. damay wuti doole doole mën nga koo wuti ci làmb parce que doolee làmb dafa yomb ndax làmb du quarante du 90 minutes quinze minutes la quinze 15 man sax fi mu ne su ma entraîné 15 jours yow mii nga entraîné mënuñu mënoo maa jeexal mënoo maa jeexal ci ci ci ci ci fukki minutes ak juróom dooley làmb dafa yomb waaye nag ci jàppante ak kenn ku nekk kii dóor padd kii caxabal kii sukkër bi kii dóor mbot kii lalli kii wàcc ñu womente ñoom ñaar buñ ca àggee aas dafay feeñ ay at day feeñ ci doole ndax doole gone ñett doole koy am lekk gone koy man daw gone koy man ndax gone am doole fay feeñ quand même ah oui ah ah waaw ak taar Balla bu neex la war naa mën a nekk ah oui mais war naa mën a nekk Balla Gaye booy Niang combat bu neex la amaa Baldé Modou Lo combat bu neex a neex la maanaam mën naa wax nii ñaari combat yooyu <laughs> eh, day nekk combat yoo xam ni ci fukki at yi bokk na ci combat yi gën a neex. pourtant am na ne Balla Gaye war na bëre ak parce que Boy Niang dafa jóge ci défaite digganteem ak Lac. non loolu man gëmuma loolu parce que man damaa xam làmb mbër mbër mbër dana jóge ci defet bëre ak ndaanaan parce que dafay am defet boo xam ni amul benn défaite boo xam ni sax ndaanaan bu toll ni booy Niang même bu daanu woon juróomi yoon mën naa bëre ak Balla Gaye jóge ci défaite du tax a bañ a bëre parce que man gis naa fi mbër yoo xam ni yii mais mbër mbër daanu na ñu fay ko cent millions ki muy bëreel ñu fay ko cinquante millions loolu moo jar xool waaw. jaar man su fekkee ni Balla Balla c'est mon sama doom la moom itam maa ngi koy ñaanal yàlla yónnee na ma nag ci màggal gi gàmmu gi yónnee na ma nag maa ngi ñaan ci yàlla moom Balla Gaye 2 wërsëgam yàlla na ko muurloo moom ak njabootam ndax nag dama lay wax ne man dama tuur sama ñaq ci làmb 40 ans mbër mu ma teral dinaa ko wax Balla këram defe naa mat na juróom-benn at wala juróom-ñaar demuma këram ñëwul sama kër danañ déggante rek maa ngi moom waaye yónnee na ma nag ci màggalu Touba yónnee ma nag ci gàmmoo gi comme bi ma Aziz Ndiaye yónnee nag nagu nagam ak nagu Aziz Ndiaye ànd. Sa Thiès kan moo koy may sens Eumeu Sène war na ko may sens wala wala Gris Bordeaux kan moo ko war a may sens. Sa Thiès Eumeu Sène mën na ko may sens maa nga naa naag Mor Mor Nguer Mor Nguer daan ko 81 mu bëreeg Samba Diaw te booba Samba jaw a ngi indil coow Mbaye Guèye gis nga Sa Thiès Eumeu Sène daal. mais mais Eumeu Sène xam nga man xam man dama xamul dama xamul mais mais Eumeu Sène bëre mooy liggéeyam Eumeu Sène bëre mooy liggéeyam xam nga ñun li ñu xamoon Ousmane Ngom bi muy bëreeg mànga usmaan ngoom Robert la dajal jamono ak ñoom ak ñoom ak ak ñoom Ousmane Ngom dajal jamono ak ñoomin Moussa Diame Dut Baka Sarr yaa ngi dégg ak ñoomin Fara ñooñu la mais terewul Ousmane Ngom bëri naa ak mànga Mayoro Fall bëri naa ak ah, yaa ngi dégg donc loolu il faut ñu ñu ko moor Fadam bëri naa ak Yékini Ahmed Ali bëri naa ak Yékini Mor Fadam ak Ali kenn ku nekk bi ngay bëree Yékini sab taaw ak ne maasa mbaa sab mag ko kon loolu Eumeu seen bu ma doon moom buñ ma joxee Sa Thiès ma jël suñ ma joxee Malick ñang ma jël na ko boole ci liste bi mbër soo ko mënee da nga koy daan làmb garab ci kaw lay fekkante olof daf koo lépp mais dëgg la mbër soo ko mënee da nga koy daan. Gris Bordeaux kan lay may sens. man na man na bëreeg guy gi man na bëreeg Boy pour pourquoi pa man na bëreeg Sa Thiès pourquoi pas où est problème xam nga man li ma xamul mooy. yow nga jël léegi man jaay dibi mooy sama métier manaa duma jaay xar mu weex xar mu xonq laay jaay ak du ma jaay dibi weeru 31 euh, euh, euh, décembre premier samedi laay jaay loolu fu mu am Gris Bordeaux bari mooy métier am kenn ku ne ci ñoom xam nga li la dese xam nga li la dese ci làmb ji xam nga li nga mën a am mbër mun ne yaa gën a xam sa bopp sa yaa gën a xam sa bopp même sa soxna si ngay tëddal nekk ak moom ci kër gi yaa ko gën a xam sa bopp yaa gën a xam li nga man yaa xam ñaata at nga dese ci làmb ji yaa xam ban mbër nga war a dajal koo war nga mun a daan su ma doon ñoom man damay jël daan mbaa daanoo fi nekk làmb ku ci nekk maye sens. Moustapha Guèye dafa may sens Lac de may Balla Gaye 2 sens nañ waxante dëgg am euh, Balla Gaye dafa may euh, euh, Balla Gaye 2 sens. Balla Beye numéro de nañ waxante dëgg làmb ku ci nekk da ngay may eh, Mor dafa may Ibou fa Saas may Aline Diouf Saas du fi jeex tubaabu joor dafa may doctor fay Saas yàlla may ko Saas mu daan ko daan Aline Diouf yàlla may ko ci Saas mu may mu may Tyson Saas Tyson daan ko parce que tubaabu joor bi muy daan Tyson dégg na daal yor roi de arènes may tey san sens cest à amul may sens kii da ngaa ba sa carrière di bëgg a jeex carrière am feeñ mu daan ay moromam bañ jeex soo bëggee ci koppar da ngay bëreek moom ku bëgg xaalis da ngay bëreek xale yi soo bëreek xele yi da ngay retraité ak sa doole boo ko desee. am na solo rendez-vous bi le 9 février la. diggante Bour Sine Eumeu Sène Junior. waaw euh, loolu moom euh, maa ngi wax auzu billaahi mina seytaani rajiim di ñaan ci yàlla sunu boroom yàlla may nu ñëpp gudd fan gu ànd ak wér di nuyu sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp muy bés boo xam ni bii ci laay feete suma retraite ndax maa ngi retraité premier avril 2019 euh, feet googu nag làmb rek laa ko mën a def bari na lu ma ko mën a def waaye làmb mi nga xam ni ci laa liggéey ba dégg ba nekk fonctionnaire de l'État su ma demee ba war a féete suma ma retraite làmb laa war a tëgg ma def ko le 9 février ci arène nationale muy bés boo xam ni bii président Afrique yi li tax seeni lettre ñetti chef d'état Afrique laa bëgg ñaan audience seeti leen pare naa ci ñu ngi ci CMA yi waaye li tax duma demaguma ci ñoom joxuma leen ay leetar mbay ci sa tànk ndax man sama président dama koo xam muy sama xarit ma bëgg ko defal ko lu ma musul defal benn chef d'état mu defal ma lu ma kenn musul defal moo yëg ma muy président Macky Sall ma di ko ñaanal yàlla yéeneem ci réew mi yàlla na ko yàlla sunu borom sottal lim ci bëgg moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal ci barke bi bi di ndokkeel soxnaam muy première dame di ko féliciter di ko ñaanal moom itam coono bi mu sonn ci ginnaaw boroom këram yàlla nag ko yàlla fay ci njabootam ci barke yonent bi jigéen ju mag la bés boobu nag muy feet bi may feete suma suma retraite mooy bés bi gën a màgg ci man ci wàllu liggéey ci àddina bépp nit boo xam ni fekk si nga ma ci dinaa la bàyyi xel bu baax te dinaa la jàpp moo tax ma bëgg président Macky sàll communicateur ak artist yi muy recevoir mu recevoir ma ci bés bii ndax moom laa ko tudde te mu recevoir ma jomb ma ëpp ma ndax li ma jàpp mooy li ma ko defal amul benn communicateur bu nekk Sénégal bu góor mbaa bu jigéen bu ko ko defal woyoog noo maa gañe fa ma dëkk législatif ya maa gañe parrainage maa gañe 1126 waa laa gañe ci présidentielle kon man jëf naa kon mérite même mérité naa mu recevoir ma bu waxuma sax mu recevoir ma pour dara mais mérite naa mu recevoir ma tax damaa jëf ci ginnaawam lu benn communicateur jëful kon bu ma toogee di gis muy recevoir ay communicateurs yoo xam ni kenn ku ci nekk sax ba muy campagne nungu woo fés wax ni président laa àndal te man damaa fésoon ne moom laa àndal na ma recevoir mérité naa ko yelloo naa ko rawatina nag feet gi ma bëgg a def te dara jaale ko ko mook soxnaam loolu nag bu ma dajeek moom ba pare ci laay door a dem seeti président Adama Barrow ci laay dem seeti Alassane Ouattara xam nga Alassane suma xarit la ndax bi mu nekkee gouverneur banque BCEAO maa ko daa jaay dibi maa ngi ànd ak moom ay photo ku mel ni RIC muy président Burkina Faso di Kaboré suma xarit la am naa lu ma seq ak moom moom xam na man xam naa ak ñanu ko seqal euh, bu soobee yàlla danaa leen seeti parce que nit amul lut boppam amul lut bésam te su ma liggéeyee ci làmb ba retraité tëgg làmb yóbbu ko arène national làmb ja war na nekk làmb ak leneen bis boobu nag dinaa ci décorer ñeenti nit man ñeent ñoo ma sa décorer ci làmb ci àddina ki ma jëkk a mooy Momar Ndiaye directeur général la Dakar Basse président Akiri Fass danaa ko bind lettre danaa dem ba këram siyaare ji ko ñaanal ko yàlla bëgg naa ko décorer ci bis boobu ndax li ma décoré woon dafa doon tëgg làmb def anniversaire Dakar Waas muy combat Moustapha gi ak ak kii ak Ibou Nafa man maa yoroon làmb ja maa doon coordinateur ba maa ànd ak moom biñ paree mu yëkkati teraanga yu mag jox ma ki ci toppaat mooy Ndey Njaay Taysan naa ko décoré ki ci toppaat mooy Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yokk ay leeram Sidi Lamine lii dafa tëgg combat Modou laa Lac bu njëkk ba yaakaar naa ma toog di wax ni làmb def naa ci lu ne fekk du ma su ma juumulee lig daf ma décorer suur boobu defe naa non non non ma wax ni ñuy waxtaan ci affaire décoration ma ne man def naa ci làmb 40 ans kenn mësuma décorer Sidy Lamine ni ma danaa la décorer suba. mu yebal Lamine Samba ko wool ma xaadim ndax Lamine Samba noo dëkk ma xëy ñëw mu ni ma dama lay jox billet Màkka kooku ma nga àjjana danaa defar lettre yóbbul ko njabootam pour bis boobu dama ko bëgg a rendre hommage ki ci des mooy Abdou Aziz Ndiaye kooku moom a mujj a décoré ci làmb defal ma ay teraanga donc ñeenti décoration yi dinaa ko def du ñàkk nag ci yeneen ancien auditeurs yi ma ko seqal def ay teraanga ndax man teraanga laa xam làmb la joo xam ni daal euh, ñi ma koy tudde ñu bari soobe yàlla euh, bëgg naa itam neuf ye neuf jours yëpp ay festivité lay doon. neuf derniers jours waaw neuf derniers jours yëpp ay festivités lay doon parce que dina am yoo xam ni dinañ ko def Jurbel gi nga xam ni région boobu fa laa dëkk am na bu ñu war a def Mbàkke am na bu ma war a def Jaxaaw ndax man sama séréer la soit ma defe ko Jaxaaw ma defe ko Fatick am na bu ma war a Pikine ndax Pikine dama fa jaar am na boo xam ne ragal naa dinaa ko defee Caaroy Géej fi nga xam ni foofu laa dawale sareet doon fa roose ay dër am na boo xam ni nag dinañ ko defe fii dañ ko defe fii Dakar ci capitalu Sénégal. daal feete Xaadim Samb de zéro à zéro. waaw fa commencé ba fa. fa ma commencé ba fi ba fi ma toll. loolu laa bëgg a def bu soobee yàlla. Eh, ragal naa ni itam dinañu dem ndar bu soobee yàlla eh, eh, bu àndeek dogali yàlla maa ngi xool ak daam baabu parce que man maay sénégalais bi njëkk a tourné làmb Amérique Times Square ca xabal waaw man maay sénégalais bi ko njëkk a def maa njëkk a yóbbu làmb Amérique tourné fa émission Times Square dépensé ca lu mat 4 millions. Euh, war nañ dem Amérique dina bari fu ma dem euh, parce que maa ngi préparé leetar yi. ci fans club yi ma am ci biir àddina bi fu mel ni Amérique war naa fa dem war naa dem France war naa dem Espagne dinaa dem Italie bëgg naa dem Gabon xam nga incha allah euh, euh, Burkina ñaari nit laa fay fekk dama am ñaari xarit chef d'état bi ak suma xarit Arona Dia incha allah euh, fenn fu ci nekk dinaa fa dem créer émission jël ay caméra créer émission su jaree ma ànd mbër yi dama koy def yóbbu leen. wane ne ñaari mbër yi laa tëgg pour feete suma fi ma war a noppaloo. Lutte TV moom pare na pour accompagner la ci fête bi yëpp. waaw Lutte TV maa ngi am mbégte mu rëy di leen ñaanal yàlla parce que combat bi sodi lañ ko taxawal jënd licence jox mbër yi avance yàlla sunu borom dogal bët set suma njaboot. muy waa sunu làmb defe naa ñoo ci bind bind nañ ci eh, litti bi daal di daw topp ma xam nga bëgg a xëyee ba léegi yaa ngi may woo ba fekk si ma fii kon maa ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal presse Sénégal bépp di wax ni làmb jooju nag dina am télévision boo xam ni moo koy def direct waaye ubbi naa bunti téléwision yépp Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ni golo golo du golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon simbu gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu woon simbu na. ba léegi da ah déet xaw ma jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu rek en tant que loxo noo bëgg baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama